ñu dajee fii ci place Mamadou Dia ngir lancer phase 3 de l'éclairage public à bi may doog dañu fekk dëkk bi lëndëm këris dama koy nettali jamono bu nekk premier événement bi ma njëkk a dund en tant que maire muy feetu korité ma dugg taxi di wër dëkk bi muy jour de fête guddi korité ma gis kees yëpp génn ma gis parents yëpp génn ànd ak seeni njaboot mais avenue yëpp lëndëm ma ñëw promenade des Thiessois ma fekk promenade bi fees dell dell ak ay nit ak ay parents ñu ànd ak seen njaboot mais promenade bi lëndëm këyiis ma ni Thiès méritowul lii lëndëm gi yàlla teguñu ko ñun ñoo ko teg suñu bopp guddi googu laa jël engagement ni Thiès dina tàggoo ak lëndëm bi ñuy doog a ñëw amuñu woon ay moyens mais ñu góorgóorlu woon ba taal promenade bi ak di ko wër bi ñu ko taalee mu nekk un événement ñu gis kees waaye fierté bi ñu àndal mais booba dañuy doog a amuñu woon ay moyens yu bëri loolu moo doon phase un éclairage public ñu defoon ci 65 millions ñu dem daaw phase deux. phase 2 nous avons un ko quartier populaire yi li ñuy tuddee quartier périphérique quartier yoo xamante ni ñoom de yaakaar ni sax xanaa beaucoup de ci je pense à Médina extension par exemple mais pourtant Médina extension ci Thiès le bokk je pense à Darussalam, mais pourtant Darussalam, Salam ce qu'il la Fayou 1 Fayou 2 quartier yooyu yëpp ñu éclairer ko ñu éclairer Cité Lamy ñu éclairer Diamaguène ñu éclairer dixième ñu éclairer quartier Malick Sy ñu éclairer route Dakar ñu éclairer Thiès ñu dem aussi Médina Fall ak yeneen ak yeneeni quartier phase 2 boobu ñu ngi ci defoon presque deux cent Nous sommes phase 3 éclairage public nous allons moderniser la ville de Thiès les avenues de Thiès li nga xam dans la xar nous Thiès benn mooy avenue mais avenue Caen c'est le visage de Thiès Pour dëkk de Thiès ton premier contact avec la ville c'est l'avenue avons ñun mooy suñu de élysées

mais day nuru sondeel ne jaune rouge du réseau moderniser ma réseau bu moderne ak jamono mengo ak dayo Thiès muy réseau bo ni day basculer vers le vers l'aide. kon éclairer avenue Léopold Sédar Senghor mooy avenue bi jaar ci wetu mairie ay Nina Fall Lat Dior Houphouët Boigny Madame Beye Serigne Mourtada Mbacké Ousmane Ngom war na ci bokk Malick Sy war na ci bokk Zadie Ndione war na ci bokk pour ñu moderniser les grandes avenues de ni parce qu'il est vers la laine. Ni lefti, pour des qui soit à l'école, ni lefti, 347 millions. 347 millions. Mais, il y a un direct éclairage phase 3. Thiès de Paris est embouteillage. Mais, D'abord, pourquoi me gomme éclairage public Éclairage dafay indi sécurité jigéen ñi xam na lan sécurité guddi bari na ay agression bari na ay viol Yo xamante ni su éclairage amoon mon du am éclairage day créer emploi Amna ko koo bu éclairage amee dina mën a liggéey amna ñu lu tuddee économie de nuit économie de nuit boobu pour mu dox il faut éclairage public am mais aussi dafa créer bokkul ci cadre de vie ville dafa war a am cadre de vie xale yi mën a génn féexlu même bu ñu amul xaalis bokk na ci xeex yi may xeex pour place yi ñu privatiser yëpp ma nangu ko parce que place yooyu kenn waru ko privatiser ndax am na koo xamante nii mën ta dem restaurant fay il est jeune wala am na parent boo xamante ni war na am possibilité ànd ak njabootam dem ay place publique yu ñu aménagé yu féexlu ko su ngoonee ñu ñibbi te duñu fay dara et je vous donne pour li ñuy def fële ci place de France je vous donne rendez-vous à la fin de l'année allons rénover la place de France ñu tuddee ko place Mitterrand déedéet place de France ñu rénover ko ñu démocratiser ko ñu defar ko waa Dakar bi jógee Dakar ñëw ko xool. mais yamuñu ci éclairage public dama doon wax ni Thiès dafa bëri embouteillage parce que Thiès dafa màgg léegi. il faut nous organiser circulation Si mag yi ñoom ñoo xam feu tricolore mooy feu rouge mag ñi nee nañu amoon na Thiès bu njëkkoon bi feu rouge di doog a ñëw Sénégal Thiès lañ ko jëkk expérimenté mais suñu toll nii Thiès amatul feu rouge Xalé yi duñ gisul feu rouge ci film bu ñuy sétan wala ñu dem Dakar duñ ko gis j'ai engagé 200 millions pour y def les travaux. Et c'est la même entreprise ERT qui a gagné le marché des feux rouges, gagné marché éclairage public à Thiès. Et l'initiative éclairage d'ici la fin de l'année, avec ce prévoir qui décoration publique, vous savez qu'il y